Euh, direction du réseau bi moom mooy toppatoo réseau d' agence banque de l'habitat muy ñu nekk ci région yi ak ñu nekk à l' étranger ñun aussi ñooy toppatoo client yi toppatoo clients yi nag mi ngi ci dem képp fu ñu fekk di leen fa jëlee di leen andi banque de l'habitat du leen ubbil ay compte aussi di taxaw ci seen bépp mbébét bépp mbébét mu doon mbébétu kër bépp mbébét mu doon mbébétu soxla soxla àdduna soxla àdduna mën na doon ci jënd oto lépp lépp lu mu bëgg ci réseau bi moo koy def ñun aussi ñun ñooy toppatoo lépp ci jëm marketing communication banque de l'habitat ci olof mooy suñu jokkante ñun ak euh, clients yi nekk ci biti. kon yow euh, da ngeen mën a wax banque de l'habitat euh, ban définition lañ ko mën a daal jox tey jii parce que ñu bëgg naan banque de l'habitat BHS PHS mais xamuñu carrément lan moo tënk ci biir banque bi. bala may tontu ci loolu da may may rek ma fàttali dara banque de l'habitat du Sénégal ñu naan ko BHS ñu ngi ko sanc ci 1979. mais ñu ngi door suñu liggéey en 1980 li ko taxoon jug et lu ko tax a jug ba léegi mooy suñu mbokk sénégalais yi fépp fu ñu munti nekk ñu nekk bitim réew wala ñu nekk Sénégal ñu mën leen dimbale ñu jënd kër ci ay e, anam yu yomb jëm ci jënd kër yooyu nag nag am na fànn yu bëri ci loolu dañuy lebal coopérative yi dañuy lebal promoteur yi muy promoteur public yi wala muy promoteur privé promoteur public yi mën naa la ci citer rek ñaar lu mel ne SICAP lu mel ne SNHLM duñ dooree suñu liggéey ba léegi am na gox yu bëri yu nekk Sénégal bés bu yàlla sàkk ngeen di fi romb muy ci Dakar muy ci région yi banque de l'habitat moo ko moo ko financé mën naa la ci rek limal astuut pour leen gën leen may ngeen xam suñu liggéey ci la féetewul sooy dégg ñu naan gox bu ñuy wooyee HLM Grand Médine HLM Grand Médine toll na ci junni junni junni kër banque de l'habitat moom moo ko financé mën naa la ci limal aussi yeneen gox yu mel ne ay coopérative comme pénitencier yi muy CONACHOP muy coopérative comme militaire ñu koy woo commune mën naa ne seen gox yëpp ñun ñoo ko ñun ñoo ko financé ba ci Wakam ba ci Mermoz ba ci yëmbal nga xam ne suñ ko doon lim lim bi door na ci junni ak juróom benn téeméeri kër ak juróom loolu banque de l'habitat moo ko financé ba léegi am nañ sax beneen bu bees ba nga xam ne su ko yàlla defee su yéegee dina yéeg ci ñetti téeméer ñetti junni kër mën naa la cité limal aussi gendarmerie gendarmerie muy Kër Massar lu ëpp ci suñu boolee lim bi yëpp juróom benn téeméeru kër banque de l'habitat la cité yëpp yi dégg ñu ay Sonatel ay cité Biagui ay cité euh, assemblée banque de l'habitat moo ko moo ko ne bi ñu dooree suñu liggéey ba léegi lu toll ne téeméeri junni sénégalais am nañ kër ngir banque de l'habitat suñ ko doon xayma ci xaalis toll na ci lu jege lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki milliards <laughs> mais mais ci loolu yan condition tey jii euh, monsieur Ndiaye lañ mën a teg Euh, ngir mën a loolu aussi dinaa sawar ci tontu ji mais dinaa leeralaat lenn bala ma ciy tontu parce que suñu mbokk Sénégal yi dañ leen di dégg ñuy wax kër yi banque de l'habitat di financé wala kër yi banque de l'habitat di tabax banque de l'habitat du tabax kër banque de l'habitat du jaay kër. banque de l'habitat li ko turam di waxee banque la te banque danga am li ñu naan agrément de banque bu lay may def sa liggéeyu banque comme ni ñu ko waxee pour que nga mën a am si ci financement yi il faut nga doon client nga doon client mooy nga am compte BHS soo amee compte BHS aussi il faut nga am liggéey bu lay permettre nga nga nga mën a fay liggéey la liggéey bi nag doon na ci fonctionnaire bi liggéey bi doon na ka nga xam ne dafa nekk ci ci ci privé am contrat ka nga xam ne day liggéey boppam ak ka nga xam ne dafay yëngu-yëngu ci yëngu-yëngu boppam loolu yëpp pour wax ne sénégalais bu nekk ak li ngay yëngatu mën nañ la mbébét li ngay jënd nag il faut mu am am mooy lan mooy nga gis li ngay jënd lan la gis yi ngay li ngay jënd lan nag am na ci ñaari fànn man promoteur bi ana maanaam banque de l'habitat moo ko financé wala financé wula ko soo leen waxtaanee ba juboo ci kàddu su boobaa su la ko sa salaire maye mën nañ nga ko jëndal mën nga jaar tamit ci coopérative wala aussi soo gisee kenn kuy jaay kër ku mel ne jay na ba soo leen waxtaanee ba juboo ci kàddu mën nañ la ko sa payoor su la may jënd. alors euh, monsieur Ndiaye euh, sànq wax na waxu salarié mais bu nekkee benn sénégalais la boo xamante ni am na yëngu-yëngu mais amul la wax salaire est-ce que kooku aussi mën na prétendre euh, daal jël xaalisam ne man damaa bëgg dem ca BHS pour aussi ñu mën a financer sama kër. Mhm. maa lay wax léegi maa ngi doon wax léegi ne ci yëngu-yëngu bu mu mënti nekk te yëngu-yëngu boobu noonu may ko mu am lu muy dundee ba mën ci dajale war nañ ko mën a gunge ci mbiru kër euh, fonctionnaire bi ak ki am contrat moom moo gën a yomb wante ñi nga xam ne dañu nekk ci seen mbiru boppam muy ka nga xam ne dafa am entreprise boppam ka nga xam ne day yëngu-yëngu ci yëngu-yëngu boppam ci li muy gagné ak ci charge yi muy am ak bénéfice bi mu ciy am mën nañ ko ànd ci weer bi xam loolu ñaata la ko mën a may muy am par weer. xayma ba xam lan la àttan te lan la mën a def. Mm-hmm. mais euh, sénégalais yi tamit euh, yu bëri amuñu kër ci jamono ji. Mm-hmm. te banque de l'habitat président wax na ko nekk na banque aussi bu ñu tëral pour mu dimbali askan wi tey sur le plan social lan ngeen a mën a offrir askan wi tey pour euh, ki nga xamante ni daanaka taxu ko demee noonu moom itamit mën a mu mën am ci ci kër parce que kër surtout lan la. Mm-hmm, loolu dinaa kontaan pour tontu ji ñun li ñu tax a jóg mooy habitat surtout habitat social. habitat social aussi ku ko wax dafay delloo ci benn catégorie wu sénégalais mooy ka nga xam ne su ma ko mënee wax ci tubaab mooy ku nga xam ne revenu dafa yóbbu bàyyi wala moyen dañu naan kër yi dafa cher ñun mënuñ intervenir ci prix kër yi leneen lañ mën a eh, lan la ci li ñu mën a li mën a intervenir mooy ci ci ci ci conditions yi conditions yi mooy lan mooy taux bi lañ mën a agir ñun ñu bi ñu sosee banque de l'habitat ci 1979 ba léegi suñu taux crédit yi divisé nañ ko par deux ñu ngi commencé woon ci taux 13 pour cent léegi suñu taux yi wàcc na ba dem ci 7 pour cent ñu ngi continuer aussi di wàññi suñu condition yi di def lan fonctionnaires yi ak ñi nga xam ne salariés yi may nañ leen sax léegi ñu mën a leb kër te duñu verser apport di continuer aussi réflexion ba léegi am nañ possibilité ñoom dinañ lebal sur 15 ans 20 ans ba 25 ans 25 ans mooy ñaar fukki at ak juróom yaakaar naa ne suñu mun naa ko wax ci banque yëpp amul benn banque buy lebal client yam sur 25 ans lu waral 25 ans dañu nit ki su fekkente li ngay am bëriwul wante nga mën ko fay su fekkente sa at bi la dese nga liggéey may na la ko ci diir bu gudd di nga mën a am lu yama bàyyi lu nga mën a may nga am sa te di nga ko sonn xam nañu ko nee nañu euh, wàllu social moo leen tax a jóg rawatina ci wàllum dëkkuwaay yi loolu moo tax seeti nañu coopérative d'habitat bi ëmb kon euh, gendarmerie nekk fii ci Sénégal euh, ñoom tamit am nañ ay kàddu yu ñu sànni ci ci wàllu ndaxte social bi BHS daf ko def priorité ñu dem déglu capitaine Cheikh Faye moom nag moo toftalu ci PCA coopérative d'habitat bu gendarmerie ñu dem ñëwaat kon na ci plateau. ndaw njort gi ci kër gee ak naqar gi ci kër gee. projet bi benn la ci projet yi ñu am pour euh, sur le plan de l'immobilier donc mooy tabaxal gendarme gendarme yi ay kër du gendarme kese nag parce que projet bi ubbi nañ ko aussi pour yeneen militaires ak ak ak quota bu ndaw bu ñu am pour quelques civils du bii la ñu njëkk am parce que am na projet bu njëkk a taxawal boo xam ne ëpp na junni logement yoo xam ne dëkk nañ ci ba pare bii nii 236 logements la euh, donc am na 143 F2 euh, euh, 46 F3 et 24 F4 am na déjà euh, ñeent fukk ak benn famille yoo xam ne déjà dëkk nañ fi euh, foofu lañ toll actuellement fi ngeen gis nii F4 di ñoo nekk en en finition ñoom la ñuy pare nii mooy tabax yi ngeen di gis suñu projet bi ñu toll nii 236 logements BS def na ci euh, lu toll ci 1 milliard 500 cent remboursement bi en fait du coopérative mooy remboursé. daf ñuy jox ñu tabaxal gendarme yi léegi gendarme bi nga xamante ni mooy jël kër gi moom mooy fay euh, euh, exemple bi mu joxe mooy ku jël kër par exemple bu jar onze millions cent cinquante muy euh, benn néeg salon cuisine ak li ci des sur cent cinquante mètres carrés exemple moo ci mën a joxe mooy ki joxe deux millions apport yaa ngi fay weer bu nekk soixante douze mille ci durée vingt ans. waaw baax na ci parce que ñun déjà amuñu. amuñu moyen financier pour tabax léegi dañu monter projet bi wan leen ni leen lii lu baax la ci gendarme yi gendarme yi dañuy wutal kër ak militaires yi en général léegi ñoom bu ñu gisee ni convaincre nañ leen ci li liñ leen wax ci ni lii euh, projet bu dëgër la ñoom ñu def ci seen seen seen seen alal donc seen alal duñ ko def ci foog naa duñ ko def ci loo xamante ni nii du comme du comme li ngeen gis ni parce que kii ku ne ku ko gis xam ni euh, xaalis bi ñu BHS jox def nañ ko fii. am nañ yeneen projet yoo xamante ni euh, projet logement la comme yi ay yeneen site yoo xam ne am nañ ko buñ ko monté projet bi ba mu mat ak suñu architecte yi ak euh, ñi nga xamante ni ñoom lañu liggéey techniciens yi dañ leen di présenter dossier bi ñoom aussi ñooy ñooy xool ba xam jaral na leen ñu def ci seen alal wala déet te foog naa ni euh, bu Babacar Ndiaye gis nañu élément wu capitaine euh, Cheikh Faye bi euh, mi wax kon euh, ci wàllum kon logements sociaux yooyu sa veut que yéen yéen pare ngeen pour daal di accompagner coopérative yi ak bépp ci mu ci doon. Mhm. loolu mooy wax naa la ko sànq ci samay kàddu moo tax ko jóg banque de l'habitat banque de l'habitat priorité bi mooy le logement social soo xoolee coopérative bi nga cité condition yi ngeen may gendarme bu ñëw nekk jeune soo ko commencé liggéey. am salaire bu mën di am ci kër yi parce que dañ leen may non seulement duñu verser apport mais may nañ leen aussi ñu leb ko ci ñaar fukki at ak juróom kum ko kum kum ko may taux yi ñu leen defal ñoom mën naa ne du ma ne bëriwul mais fu ma fu néew na taux de crédit yi nga xam ne ay six six virgule cinq pour cent la ñu def loolu rek pour wan la ne ñun suñ priorité mooy habitat social. Mm-hmm. ginnaaw sénégalais yi ne fii dañuy dem di sénégalais yu ne ci biti réew parce que gis nañu ne euh, sénégalais yi ne ci biti réew soxla nañ loolu jëmee ko ci mm-hmm. parce que saa su ne dañuy amee jafe-jafe yéen lan ngeen war a mën a taxaw tey pour dimbali sénégalais yi nekk ci biti ñoom itamit ñu mën am kër fii ndax dafa ñu ne dëkkuñu fa. Euh, laaj boobu dinaa ci sawar pour tontu kii. parce que sénégalais de l'extérieur yi dafay doon suñu client yu am solo la bi ngay ñëw soo xoolee sax fii am na benn agence bu ñu tuddee agence des sénégalais de l'extérieur agence boobu dañ ko ubbi pour suñu mbokk sénégalais yi nekk bitim réew fépp fu ñu mënti nekk seen mbëggatu kër ñu mën ko jël topp topp toppatoo ko ci an anam yu yu mu gëne suñuy jël suñuy client tey jii nii mën naa ne am nañ lu toll ci ñaar téeméeri junni client suñ ko doon xaaj ci ñeenti pàcc mën naa ne benn bi sénégalais de l'extérieur yi ñoo ñoo ko ñoom ñoo ko ñoo ko doon Euh, ñoom aussi suñu bëggee kër ñu leen di accompagner suñu gisee kër ba nga xam ne promoteur bi moo xëy ji jaay mu jitteel leen mën nañ leen lebal ñu jënd kër gi ku ci am sa terrain bu ñu ko tabax banque de l'habitat mën na la lebal nga tabax tabax sa terrain ku ci dem ba door sa liggéeyu kër yeegul soo ñëwee fii ci suñu xayma li ngay am ci weer mun nañ la lebal aussi nga tabax. Mm-hmm. mais yéen ban yan assurance ngeen war a mën a amal sénégalais yi nekk ci biti réew am daal ñëw ci BHS parce que ñoom chaque fois dañuy confronter ay problèmes yu ci mel ni jox nañu diw euh, affaire yi mujjul ak ay problèmes fonciers yi ni mel parce que gis nañu ko lu bare bare ci Sénégalais yi ne ci biti réew yéen BHS ban assurance ngeen di euh, jox leen assurance. ci ñu ñun la gën a yitteel. lu tax ma di ko wax ñu ñooy jël suñu xaalis di ko dugal ci kër su boobaa il faudrait que fi ñu koy dugal mu am garantie. waxoon naa la léegi ne ñun du ñu jaay kër du ñu tabax wante client yi nekk bitim réew jënd kër su demee ci promoteur bi waxaaleeg moom ba ñu d'accord su ñëwee banque de l'habitat ñu mën nañ ko lebal lu mu jëndee wante nag xaalis bi mënuñ ko jox promoteur bi tant que kër gi tabaxuñ ko ba mu pare client bi mu nekk bitim réew su ñëwee fii mun na dem visiter kër gi xool ko xool ndax ni ko ko promoteur bi waxee mën nañ tabaxee kër gi su boobaa dafa am benn këyit bi ñuy woowee état des lieux moom moo koy signé nañu lépp li ma xaaroon ci kër gi gis naa ko su boobaa yéen mën ngeen fay promoteur bi xaalisam naa leen dalal xel même su fekkente client bi dafa ñëw xool signé fiche état des lieux bi ne lépp lu ma digoon nag promoteur bi def naa ko dañoo am service technique ba nga xam ne dafay demaat ba ci si gox bi xool ndax li client bi su dee boobu loolu yëpp am na su boobaa la ñuy soog a jël xaalis bi jox ko promoteur promoteur su fekkente moom aussi nekku fi am mbokkam bu ko doy muy jabaram muy rakkam wala muy muy waajuram mun na ko defal procuration moom moo ko fiy taxawal lépp lu mu waroon def fii nii moom moo ko fiy doon ak tànkam ak ay bëtam moo ko koy xoolal wante pour dalal seen xel nu jënd kër bu amul parce que kër gi ñu ngi jël suñu xaalis après dañ koy hypothéquer donc ñun la gën a yitteel que lu ñuy jënd doon li am. ce que ngeen a financer ay sénégalais yu ne bitim réew ñaata euh, wax naa leen léegi ne suñu portefeuille client. bëri na lool xaaj bi suñ ko doon def ci lii xaaj bi sénégalais wu euh, de l'extérieur la suñ koy xayma ci ci ci ci xaalis toll na lu mat juróom ñaar fukki milliards ci xaalis juste pour sénégalais de l'extérieur sénégalais de l'extérieur kon am pàcc bu am solo fii ci banque de l'habitat du Sénégal kon monsieur Babacar Ndiaye bu ñu jógee fii xam nga fu ñuy dem hmm. dem seeti seen processus euh, bi ngeen xamante moom ngeen tëral ngir accompagner ñi ngeen di financer jëmee ko ci wàllu euh, ci wàllu immobilier parce que BHS du rek joxe xaalis hmm. parce que da ngeen di accompagner sur le plan technique suivi daal hmm. maanaam moom mooy am ci wàllu woowu maanaam ma bàyyi la def sa mot de la fin ñu dem si chantier bi dem euh, ngeen di liggéey yéen waa BHS ak promoteur di jàppale di leen gërëmaat rek di leen santaat ci li ngeen ñu may ñu waxtaan ak yéen eh, di yaakaar ne su Sénégalais yi am nañ beneen gis-gis ci banque de l'habitat soo leen demee ci service bi exploitation ñoom xam ne ñoo yor lépp nañu euh, ca banque de l'habitat du Sénégal waxtaan ak euh, Babacar Ndiaye ñi ngi fii ci chantier bi nga xamante ni waa holding Baobab ñoom yokk ko di sumb ci chantier bi nag BHS daf ci dugal euh, loxom bu bare bari ndaxte BHS bokk na ci ñiy financé li nga xamante ñoom mooy projet bi ci loolu nag dañuy ànd ak kii di Daouda Koli moom mooy chef département technique bu banque de l'habitat du Sénégal Daouda Koli maa maa ngi lay fay Dieynaba. fi ñu taxaw ni ci ginnaaw mooy fan. waaw fii mooy euh, quartier cité Kër Góor gi euh, holding Baobab benn promoteur la boo xam ne dafa bénéficier suñu financement moom mooy euh, tabax fii ñu nekk nii actuellement ay logement ak benn immeuble. kon nañuy dugg ci biir chantier bi xool la nga xamante ni moom la holding Baobab. daal di def ci liggéey waaye tamit nan la leen BHS daal di euh, gunge ci seen processus kon de construction loolu nag ñu ci ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne fii di euh, kon euh, ña jiite chantier bi waaye tamit ñi nga xamante moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu contrôle parce que contrôle itamit la ñuy wax ci seen émission sama kër te contrôle ñu am njort ne loolu aussi moom moo tax a jóg waa banque de l'habitat du Sénégal du rek génnee koppar waaye tamit te gët ci li nga xamante ne moom la ña ñuy financé di daal liggéey kon monsieur ko li ñu